Cheikh Bara Ndiaye daal dina yëkkati ay kaddu addu ci kaddu yi nga xamante ne Maimouna Ndour fay dal dina koy yëkkati kaddu yooyee nga xam ne yëkkati woon na ko ngir tuumaal Ousmane Sonko wala sax état bu Sénégal Cheikh Bara Ndiaye daal di daal di lépp feeñal leeral lépp loo xamante ne aju woon na ci tele boobu di setti nan la ko amee ak lan la ko yoon di toppe mbokk yi lu seen chaîne préférée seen njëriñ TV ñu ànd ñun ñëpp seetaan vidéo bi aimé ko partagé ko ngir ñëpp ñu féete ci réewum Sénégal ak bitim réew daal di ciy mën a jot affaire Maimouna moom c'est vrai barki dembu dan nañ ko dan nañ ko du won nak dafa jënd télé bi parce que licence télévision kenn du ko jaay parce que c'est appartient de état sénégal état mom mom licence licence waaw ni ko lu ñuy jaay lan la jënd euh, lim jënd moy dafa waxon ak nit ne leen dama leen di jox hmm. dama leen di jox 150 millions ngeen jox ma manam télé bi yena may jox fréquence bi jox ma satellite jox ma lepp manam micro caméra su ko defee man ma jël ma jox leen 150 millions nga xam ne moom laay moom laay moom laay participer daal ci bokk mel lu bokk ci télé bi. waaw léegi ngeen jox ma télé bi may liggéey chaque années ñu def 60 ngeen am 40 pour cent ma am 60 pour cent. Hmm. ñu d' accord bi ñu d' accordee moom mu ñëw jël télé bi. départ bi mu demee maanaam au début dafa joxe 50 millions ci 150 millions. 50 millions daal ñu jox ko matériel bi. jàpp ne dina mottali mu jël. Hmm. bi mu jëlee 5 fukki millions la ci joxewaat muy 10 millions. léegi nag dese quatre-vingt-dix millions yoo xam ne ba léegi joxewu ko te moom mi ngi exploité télé bi. Ah. quatre-vingt-dix yooyu dafa ñetti dossiers yu bokkul la dafa bokk ci benn dossier bi ñu ko daane. Mm-hmm. mooy daf ko war a joxe. dafa war a joxe quatre-vingt-dix millions te bu ko quatre-vingt-dix te su ko mm-hmm. joxewul fii ak décision décision juge bi di génn. bu ah. juge bi motivé décision bi mu jël. Ah. tele bi moom dañ koy jël. parce que loolu la yoon santaane. dañ koy ki ko moom da koy jëm jëli. waaw xanaa diggante bi mu am fi quatre vingt dem joxe ko. waaw bu ko defut. dañ koy jël dañuy ndër télé bi waaw télé bi mom day fay parce que borom télé bi dana dem jëlib télé hmm waaw loolu mooy li wér li may informé deuxième bi nga xam ne am na ci mooy bim yoré télé bi manam pendant sept ans koo xam ne da ngeen a wax ne da ngeen da ngeen a bokk télé bi day am 60 pour cent yow yaay am 60 pour cent moom muy am 40 pour cent nga yor télé bi pendant sept ans mosoo ko rendre compte mosoo koo jox dërëm hmm? waaw kooku loolu tamit beneen dossier la bo xamne ñing ko estimer ci 500 millions. 500 millions diko ci top même bu fayé 90 millions yi. waaw 500 millions yoyu tibit bu ko munta fay. waaw aussi que man na def dilatoire fi 3 mois ba 4 mois mais après té la bi tamit borom da koy jëla parce que mm-hmm. dafa wala bok mu dem lijeenti lolu joxe. manam mm-hmm. ci nonu la démé ni moy affaire bi. mais nekut ay ki bu dé ñi wax ay affaire dana appel ak appelut. li lii ñu ko daane nii may mëna mo appel. appel waaw moom dañ ko daan mu dim jël affaire bi def def def def def def. def appel ñu daanaat ñu daanaat ko. mënut a appel donc moom fay rek baa joxe li fi jàmbur loolu moo ca. fay mbala joxe. waaw lii ma leen wax nag manipulé yi bari na waaye lii ma leen wax moom kenn du dara du ko dindi. ah waaw. manipulé yi bari na waaw nag waaw. kuy manipuler. non xam nga gars yi boo leen bu dara amee duñ tontu directement mais dañuy dem tontu indirectement. Euh. waaw <laughs> waaw mais lii ma wax nii. Euh. bis bu demee ba lépp ci penc ma lay mujj. te bu génnee du wuteeg li ma wax. d' accord rafetlu ànd bi ngeen àndoon ak seen chaîne préféré seen njëriñ TV ñëwaat ci kàddu yi Cheikh Bara Ndiaye leeral yi mu indi ci diggante mag digganteem ak Maimouna Ndour fay waaye nag sikk sàkk bi nga xamante ne ñu bari ñu ngi ko doon am ci kàddu yi nga xamante ne moom Maimouna Ndour Faye yëkkati woon na ko di jiiñ ak tuumaal Ousmane Sonko ak état bu Sénégal ci ñoom ñoo ko bëgg indil ay jafe-jafe waaye leeral yi am solo mu ngi nga xam ne Cheikh Bara Ndiaye daal dina koy indi jural na ko plainte boo xamante ne ci ajjuma ji weesu moom Maimouna Ndour Faye daal dinay déclarer la guerre ak ki nga xam ne mooy Cheikh Bara Ndiaye Cheikh Bara Ndiaye nag mel na ne moom li mu rapporté wala sax li mu wax jëlewu ko lu dul fi nga xamante ne la ko sukkandikoo mooy juge wala tribunal bi nga xamante ne àtte nañ digganteem ak ña nga xam ne ñoom la loon ba ñu joxoon ko télé ñu am lu ñu diggante woon ci yooyu fee yooyu rek ci la Cheikh Bara Ndiaye yem Cheikh Bara Ndiaye na li tax mu teel a raftu kii di Maimouna Ndour Faye bëggoon teg ci kaw gouvernement bu Sénégal rawatina ci premier ministre bii di Ousmane Sonko.